auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim way ni unisa bi ko wasriyata mina shaytaani rajim barke sëriñ Tuubaa Ceerno alhamdulillahi ñu feddaleeti sa cant ndax bu yàlla doon limaati bis ba ma te daa woote fa daaru muuti xëy na dellu seeti su ngeen ma diglu woon ma fàttaleeti la tax ma woote ak ka tax ma woote sëriñ ma marje boo waral ma woote ca weeru gàmm wa bu kenn wuute fukk ak juróom-ñaar di rabiwul awali waa ju ko teewee bamba dal la jàllale waa ju ko màggal di ko màggal ba fajar na mel ne waa ju teewee xasootul ba dar mbaati xuney ni mbaa uhut mbaa xibara di xus ca noonu yàlla mel ne ay dara mbokk yi ngi leen nuyu baax di leen bare bari di jiite ci nuyu bi ak ziara di ci teg sëriñ Abbas Mbacke xalif borom daarul mooti sëriñ maam Mor Mbacke xalifa sëriñ Mor Jëbu di nuyu sëriñ maam Koso Mbacke xalifa sëriñ Modou Xari Mbacke sëriñ Modou Mbacke xalifa sëriñ Abdul Xuduus sëriñ Koso Mbacke ibnu sëriñ Abdul Jamil soxna Mariama Kunta ak mboole seen kilifa yi demee ne moom yëpp ci gox bile le di nuyu ak ziar itam sëriñ Koso Mbacke mu sëriñ Abdourahman sëriñ Daam Mbacke Ahmadul Xari xalifa sëriñ Mbacke jëm ak mboole seen mbokk yëpp di ndokkeel mboole seen mbokk yi nga xam teew nañ fi ñëpp di leen ziara joxe kàddu yi njéggalu baax a baax a baax comme ni ko sëñ Cheikh tënkee rek kàddu yi cant lay doon yu mënta ñàkk bis bi bisub sëriñ moo Diabou la sëriñ Modou Diabou mu daaroon moote la moo tax mbokk yëpp xamee ko noonu itam moo tax bisam bu nekk ba ci càppandal gi dana aaja sa yëkkatee kàddu cant jagle ko mboole seen mbokk yi ci taxaw ci fànn gu nekk rek fànn yu wute yi di sant ak a gërëm di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi ak cant gi yëpp rek xalifa sëriñ Modou Diabou sëriñ Mamour Mbacké mi nga xam ne moo toog jataay bi sëriñ Modou Diabou di ko nuyu baax te a baax di ba té teroo dañuy jokk ak moom di léral liggéey bi ak fi mu toll boobu ba légui fuñ ci jéego buñ ci sék rek mom lañ ko andal and and ci gën gëna rafete niko señ cheikh seex xéti plateau yi xéti émission yi non def mu ci man doon rek moom day té ba mu ba mu and ko ñun ni ngi ni ngi dundé mu di dundal noné loolu nak ak tiofel ak bëgg ci la ci la mëna a yem boole di jokk ak ñu nan nangam day baxna way buñ ko won nangam day nangam day baxna nangam day ci la nangam nangam di la ci lu bari bari bari lolu xamne ne bis bi sama motax mu di ko defee noonu te loolu di am di ko sant bu baax ba baax te di ko bàyyi ak Serigne Mor di sant boole seen itam ni ñu bokk liggéey bi yëpp ñu demee ne moom ci biir liggéey bi mboolem juróom mi bi yëpp loolu bu ñu ko waxee Serigne Xari xalifa Serigne waaye la ko Serigne Maam Koso xalifa Serigne Modou nga xam ne tey jii ci ngoon rek la ndawam yegsi la ndawam yegsi andi lu bare bari ci ngir ngir sëñ Mor Jabu ngir sëñ Mor Jabu Mbàkke xam ne mu demee ci kër gi tarkaal la xam ne xam ne waajuram la ñu wooteel moom lépp lu ñu ci def moom lañ koy defal loolu xam ngeen ko xam rek yokkute la ci ñun ngëneel la ci ñun itam ñoo ngi sant baax Mbàkke di sant baax itam Serigne Daa Mbàkke Amadul Xari xalifa Serigne Mbàkke jëm moom itam ba ñuy jógee ci Serigne Mamoor rek la ñu dem ci moom la ñu daal ci moom mu rafetlu ko baax a baax a baax boole ko ni ko Serigne Mamoor doxee noonu la koy doxalee Serigne Mamoor Mbàkke mu Serigne Thierno waaye di cant googu nañ koy teg di loxo Serigne Modou Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu moom mooy suñu buntu ci kër ko sant nekkoon Thiès di coordonné ak mboolem seen njaboot suñ ceerno kees gépp yéeneem xam nañ ko baax a baax a baax daaw noonu la ko doxalee njaboot suñ ceerno gu jigéen gi ku ne mu dem ci yow leerala liggéey bi na mu doxee gu góor gi waxi nopp noonu la ko doxee yéeneem xam nañ ko baax a baax ci bis bi njabootu sëñ Mor Boussalo ñoom dama toog di jekkee sax di leen moom xam naa ne moom day day xorom mu ci moom ndax ñoom dañoo péete dañoo dañuy loolu nangu nañ ko yàlla def na ko ay gaynde lañ fu ñu toll ci liggéey bi ñoom fu ñu toll ci liggéey bi ñoom lañ koy àndal nangam day bu ko doxalee nangam day bu ñu ko doxalee nangam yoroon naa ko bërëb sàngam nañ ko andi dana baax ci liggéey bi ba ci ndaayeen wi bi ndeysaan sëriñ ko sa taala bi mu déggee may wax wàllu alxadimee bi rek la ne am na sama waajoo xam ne sow la nekk naa la naa la koor nekk moom ko ne ko sama rakk la a baax a baax noonu mu koy doxale suñu am satu booba léegi moom itam fu mu fu mu ci toll fu mu ci toll rek lu mu xam rek mi ngi ciy dox di ko doxalee waaye ca booba sëñ Abdul Xudus mu sëriñ Taala mi nga xam ne ñu ngi doon jokko bu yàgg ba léegi mu am ci positif loolu am ci am baax a baax a baax lu ci mat a taxaw rek mu tax mu di ko taxawee noonu njaboot sëñ maam ko sa naka noonu noonu nga koy tuddee ci njaboot sëñ Moodu yaa léegi la fi jógee boo ñëwee ko sëñ Moodu itam noonu la ni mu jaar ci sëñ Maam Mor noonu la wàcce ba ci sëñ Basiiru jaar ci Moodu Kara ba ci sëñ Mbàkke sëriñ Moustapha njaboot sëñ Moodu Amin Saaw yëpp noonu la ko doxalee boo demee ko sëñ Mor Bousso Lo ni mu ta jaar sëñ Abdou Khoudoss ba sëñ Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Bassir noonu lañ Jëbu gi jigéen gi ñoom ñëpp soxna njaboot soxna na ma teel a a Jëbu sëñ Alaaj Jóob njabootu soxna Bousso Daaru Mor Jëbu ndaw sëñ ko sa Mbàkke ñu egsi na eh, ci ngoon am ci yittelool moom itam Balla sëñ Abdul Qadir Mbàkke mu sëriñ Kosa mu soxna mu Buso jangalu kamil yu bare bare bare ngir bis bi njabotu njabo njabotu sona Buso ñii bi sona soxna mu soxna Muslim Mbàkke mu sëriñ modou Xari léegi la fi jógee soxna njebu Mbàkke mu sëriñ modou Jëbu ñom ñom ñep taxaw ci bis bi taxaw ci taxaw ci bis baaxa ba kon mbokk yep san nañ leen gëreem nañ leen dekk ndoy sëñ Omar Sarr sëriñ Kosa Diop ñom ñep sëñ Omar mom na ko dan doxal na la ko doxale ubi kërëm ren mu doli ci joxe watam ne fu ngeen jëm rek na na na fa dafa jëm daane da ngeen ñi nax sëñ Mor Diop li ngeen def lu baax la loolu kon lu baax la nag def am dencam rek la kon nag duñ leen bàyyi ngeen di ko jëf di ñu seetaan ubbi këram joxe wataam loolu lépp boole koog joxe xéwal gu bare bare ngir bis bi jag rek di ña bokk ci biir liggéey bi sëriñ Koso Diop sëñ Sayar Ndour boole seen dëkkandoo yëpp noonu noonu lañ ko doxale di sant bu baax baax ñu bokkal itam ci wàllu waajuru jigéen wi ñom ñep ba weeru gam bi téro ba léegi ñoom ñëpp kenn desul takkatoon bu baaxa baaxa baaxa baax a ku ne lo xam boko défé bis bu jagg rek yaa ngi jeex moo xam muy sëñ Moustapha Jaxate sëñ Mbacke Ndiouk son Aminta Tassaw mi ñu tuddu son Ami Saw mi jiitu won ci kër sëñ Jabu soxna Ami Xuma Jaxate soxna Loo Jóob ña fa Tuubaa ak ñafa fa Daaru Mutu ñëpp cee moom ñoom ñëpp ñii ñi mëna ñew ñew nañu ñi mënta ñew itam yóbbee yone nañ seen adiyé ñi ñii ci mën taxaw itam ci xel ak ci xalaat ñep ak ci doole taxaw nañ ci san nañ ñep di gëreem ñep waye ñay xaré yi nga xam ne and ànd ñoom liggéey bi sëñ Mor Diop wala ñu ñi andi ñi liggéey ku melni ne sëriñ Modou Fall Nar Sagala ni ko sëñ Cheikh junjee léegi bu yari téro lay ñew ci man bis suñu bis ba teru na noo ko bëggee ren gan li ngeen gan ndigal nga ma ci dox ndax ndax nañ ko daan défé loo loo ko bëggee rek foofa lañ koy tegee noonu rek lo rek moy kaddom ñan ngeen fasal ko baax ci dara sëñ Mor Diop ku deggul la ci sëñ Mor Diop noonu sëñ Modou Ba sëñ Bay Ba sëñ Modou Dieye mi nga xamné ci dafa dox ba yegg ci kër mom moom ñaayu xar la woon xam si bi yesu rabbi la woon xamna ko naka jek danaa ko wax kenn ci wa kërëm rek nee ko mom day xam naa ne bu ñu ko tuddee suñu Aliou Dieye dëgg la euh, waaye mosu xamee suñu Aliou Dieye ko tuddee waxtu bu nekk loxo mos cee la bokk sëñ Modou Dieye noonu lañ koy topp ba ci ñoom ñëpp tàkkaale ko rek day ak candam day matale ci yëngu bu am solo ñoom ñëpp kenn ku ne geetaru daf ko no am solo suñ sees ma nga xam moo doon suñu digg ak ñoom macha allah am nañ ci lu kaw njortu seen yéene ah, mat na lool suñ sees suñ Mahmoudan ni ngeen ko taxawee bëgg nañ ci lool dañ leen bàyyeeg borom dañ leen bàyyeeg ki ki dañ leen bàyyeeg borom guy gi sëñ Mor bu Mbàkke boroom jàmm sama waa ji euh, di leen kalaamee ak moom sunu sunu xol seet na ci yéen lool sëriñ Xaadim Njaay Touba Fall FM taxaw taxawaay bu am solo ñëw keroog def ko direct ndeysaan sëñ Abdourahmane Lo war fa ci FM Mbàkke dama ñaari émission la lay jox ndaysan andil seigne Mbàkke jam ak seigne Modou xari ñu dem ba mbiri xawa xat bis bi di aljuma ta aljuma waro nek émission bi tay ji ci guddi gi ñu na loolu du mëna nek ndax bis bis magal duñ ko mëna magal bu ba noppi ko def émission mëna ñu andi seigne Modou xari Mbàkke ko na xam ni ni ni ni taw feexee ñëpp ñu ko déglu ñëpp xam ne la mëna ma njabot seigne Modou jëb gépp nañ ñëw loolu yéene la ak yité al alxadimiya TV yëpp al khadimiyya tv ñom ñep ñoom seen bi yep ñom itam ku ne xam ku ne gis nañ doon dugal Serigne Mor mbir yi tarkaal ñu gën ko yaatal ñoo def plateau bi dara ñoo def am waxtaan bi dara ñom itam loolu pass pass ak yene kon presse bi ñeen sant nañ leen baax a baax ndaa yéen wi sama mom dañ leen bàyyi Serigne Mor Diabou itam ap plateau leen fi indi won ñëw dañu def documentaire def plateau loolu ku ci xam ne nag documentaire bu ko doon liggey la cay aju mom ku ne xam na ku ne xam na ko waaye ñu ne lepp dañ ci def addi seigne modjebu ku ne xam ne ne wanante dëgg lañ joxe keroog ñu wan la bu ko wane ci yéen bu baax a baax ne lu ñu fa jël rek nañ ko jox ma daal di ko jàllale Touba TV direct waaw loolu yéen la ak loolu yéen ak pas-pas ñu ngi ci sant baax a baax a baax sëñ ko ak cantam baax a baax waaye di sant ñi nga xam ne a ànd ñoom liggéey bu baax a baax sëñ Mbaye Gueye Sill borom pas la ci sëñ Mor lool ku bëgg sëñ Mor Diabou la lool sax damay wax ne bis sëñ Mor Diop su ma ko digg seen Facebook rek xam ne bis sàngam la jëriñ nga ma koy wax jëriñ ngay ñëw da toogal danaa ñëw te dama koy dama daan dëkk keroog faa toom nga law bay naa jiw réew ñu naa woy pël ne ay yéegam fa daaru daloo nay naar daloo ay law bi ay xat waroo war te fii mësa la jël fa daaru yow da nga dëkk yow doo conférencier kon doo la sant yaay yaay joxe cant gi waaye dag leen seera ne ba wér teroo ba léegi mi ngi ñëw naan ma bis bi sàngam nangam nangam nangam nañ ko doxal nangam loolu bokk ci bis bi ko waral loolu nekk ci waañ bu yàgg ba léegi sama doomi bopp yi moom dama leen di beral ak cant moom dama leen wax naan damay faral di wax naan man ñi sa sëñ Mor Jëbu ma seen doomi baay seen seen ma seen rakk du ma seen doomi maam laa waaye ñi setaat si sëñ Mor Jëbu yi nag ñoo ne ma yow ñooy sa baay faal lool nag sëñ Mor Jëbu tax ñu di ko def sëñ Maam Mor Koso kenn du la fàtte yow gaynde sëñ Mor Jëbu nga gaynde sëñ Mor Jëbu maa ngi yow ca marché sëñ Mor Jëbu ba maa ngi yow ca xamle ba maa ngi yow ca Maam Góor Lija waaye maa ngi yow itam ci documentaire bi xam nañ xamee nañ bu baax a baax sëñ Maodo Balla noonu naka noonu yi soxna Asta gënda la ñay xare la soxna asam sëñ ko sam sëñ bakay jam soxna mam jaara mu sëñ maam mor ñoo doon ang wañi aha ñom ñëpp ay ñay xare lañ ci bir liggey bi sërtaak sëñ mor jëbu yëpp dañ leen kalamik seen mam ñom ñëpp mo xam ñi sëroo ci jam la ñi sëroo ci sëñ moodu ñi sëroo ci sëñ bakke moodu xari ñom ñëpp kay ko ci nek rek sa pasas sëñ mor jëbu day jéggi dayo ya lool li sax ñu doon jang alquran ji itam dama dem ko sëñ ko sa buso sëñ abdou khadir ma suba daan tambali alquran ji tam jang na ci lim bu kawé kawé sëñ Touba Faye sëtub sëñ Modou Faye fetto jàng na ci lim bu bari sëriñ Moustapha Mbacke mu sëriñ Cheikh Awa Balla mu mu borom mu sëriñ Dame Mbacke Ahmadou mu sëriñ Mbacke Jam taxawaay boobu la ci daan ba ba léegi di sant baax a baax a baax mbokki gede yi nga xam ne teewoon nañu sët Alaaji Mbacke Bousso yi sëñ Cheikh naa Bousso mu sëñ Ibrahima Bousso délégation bu mag lañ def ñëw ci suba ñëw ci ngoon ñoom itam di leen sant baax a baax di leen gërëm waaye di sunu wasiila sunu lépp sëriñ Mudu Mbàkke sëriñ Abdul Xuduus ban fa demee loolu dafa yeesalaat ne kaamil nañ ko fonkaat na bariwaat na ngeen ko yéenewaat sëriñ Mudu Jëb ak njabootam ku ne koo ci koo ci dugal rek xañña ko doxale ba ko ànd ko ñun soxna sëriñ Abdul Xuduus nga xam ne moom liggéey yaakaar na sëriñ Mudu Jëb moom itam démb la démb démb ci guddi lañ la màggal si woon di ko sant baax Mbàkke di ko gërëm ak mboolem ñi ne moom ci kër gi yëpp tarkalla kon daal daanu xañ na ni ko gars yi waxee du daj suuf waaye sant nañ baax a baax gërëm nañu itam du liggéey eh, du daj suuf di sant doomi de yëpp ak ñun bokkal ñun bokkal ci wàll gi yëpp ñu xaw ñu sant saaxo la sant jóg suñ xaasim saaxo ñu Tuubaa ñoom nañu baax baax ak kawe gi moo xam muy sant nañ baax a baax gërëm nañ baax baax daan du daj suuf rek waaye na sant nañ waaye na sant nañ ñëpp délégation bi man suñ Mor Jëbu laay nawee suñ Mor Jëbu laay waaje moom laay wàllee nettalee pas-pasam suñ Mor Jëbu laa ne kooku moom balaa kenn cëru daa cëru ku ne bis bi buñ ko tuddé seigne Aliou yeenay borom buñ ko tuddé kanen yeenay borom buñ nan seigne modjé bu seigne Aliou Dieye tax san nañ baax a baax taxawaay bi gis nañ ko ak yitté ak yéegi tambalé ko seigne Cheikh jey jaar ci soxna Kumba seigne Mamor seigne seigne baye tek ñëpp waaye nag sama piété bop ba moom dama kay dama kay dama kay baye euh, mom seigne seigne Modou mom baye tek dok di ko sant sax nak mom waa kërëm ñëpp soxna Asta soxna Xarifal at mu jot leen wax ne jiitu ji leen taxawé liggéey ba di sant ñëpp di gërëm ñëpp suñu xol sét na lool yalla nañ ko fekk at yu bari baree bari ci darajee borom daaru moti jërë ngeen jëf sëñ Cheikh bi ay gaynde lanu sëñ maam Thierno mi dem ba léegi matériel bi négu ci kenn ndeysaan lépp lu fi matériel rek moo moo moo ko andi di sama doom di sama xarit di lépp sëñ maam Thierno dañ koy bàyyi ak maamam sama waa ji bopp ji eh, sama waay bopp ji ca eh, penkub guy ga ku ne xam na ne sama waay la kat eh, sama xarit la de yàlla xam ne ko dañ koy bàyyi ak moom baax a baax a baax sëñ maam Thierno mm, tarkaal la sama sama sama sama sama sët bi sëñ Seexuna Ka bàyyi ko ba Touba Tiwaawan la jóge bëkki démb nee na bis bi rek koy yëkkati sëñ Seexuna Ka moom lu bu dogoo ñu gëm ko Ceernoy maam ak sëñ Mor Jëbu te mu teg cër boobu yépp te te mu Ceernoy maam ak sëñ Mor Jëbu soxna Faati Mbàkke la taawab sëñ Mor Jëbu la joxoon sëñ Modou Abib maam ci soxna maam Bousso mujj soxna Mor Jaañ mu jëy ko bu kon bu dogoo ñu ko bu kon bu dogoo ñu ko kat sant nañ ko baax a baax a baax a baax di sant ñëpp suñu maam Cerno mboole seen ñu demee nekk moom ñëpp képp ku ci jëf daal gis nañ ko sant nañ la daanu moo doon ji sóor waaye sant nañ ñëpp bàyyi wuñ kenn jaay ngeen jëfati